bobu ba léegi muy sonni ci parti bi lu ne mu koy def ci parti bi man mi di wax ak yeen man gën jaay man bokku mo won aper amna aper yu fi nekkon mais masuma bokk aper te masuma dem aper suma ma aper à 2018 dama tok di xol gis biran limuy def Buma ma ba dugg ci bir aper di liggéey ak wa aper grâce à biran Ngom parce que lutax lima gis mu koy def ci walu social

ak li nga xam ni am na ko yéene ci waa commune bi di ko def. di yóbbu sama kàddu ci monsieur le président de la république monsieur Macky Sall di la wax ni la ñoo ngi ñëw nekk sa ginnaaw militant muy monsieur Birane Ngom mu nekk fii ci commune jëppal Derklé génne poosam waa commune bi mën nañ ko témoin lépp loo xam ne war na ko ci commune bi ci population bi fi nekk lépp loo xam ne war na ko def ci militant yi ak ñeneen ñi fi nekk mi ngi koy def mi ngi dem ci dëj di joxe ay enveloppe mi ngi dem ci ngénte yi di joxe ay enveloppe mi ngi dem ci mariage yi di joxe ay enveloppe vraiment kii président ñun Birane la ñu bëgg nga jàppaleel ñu ko cérémoniement bii ngay def nii tas gouvernement bii di ñëw nii pour nommer dañu bëgg nomination nga joxal ñu ko Birane di dafa jot dafa jot dafa jot man mi PDS laa kon mais dama ko bàyyi ne biran Ngom lay andal si dynamisme am si logique ñu bëri ànd ci ak man yàggul en 2022 la fi def euh, financement de 60 millions jàppale jigéen ñi te ba léegi grand taxawul ne kenn fayal mi ngi leen di accompagner parce que bëgg na leen gën a jàppale toujours moo ko jigéen ñi

jàppale ko comme ñun ñi tok fi ñep ah nañ ñu jox buuña saako bu deful dara du taxaw de te combat ko ci dem ku dem ci combat da nga wara am ay arme ak ay way te way bi bi ci ñeuk moy ñu falal ñu monsieur Birane ñu gessu Birane Ngom gestu njabootu parce que mérité nañ ko te ci parti bi lañ bok genn wàll gi tok fi yeb dañu jënd ay carte te APR defaru leen tous am na ci ñoo xam ne bu ñu desee tey APR ba waxtu bii may wax nii Birane Ngom moo tax mais du lu ñu defar. li xale yi di wax na ñun moom la ñuy wax ñun Birane la ñuy topp ki nga xam ne nag ñun moom la ñuy topp yéen bu ngeen bëggee ñu topp lañ da ngeen ñu koy toppal taxaw ci ay waawam jàppale ko mu am dara ngir mu